lu jëm ci concert yi ñu waroon amal ci bisub tabaski ak ci ëllëguk tabaski gi euh, fomm gi nga xam ne jot nañu ko fomm tax na ba ñenn ci artistes yi daal di ci amal ay perte yu mag a mag ay millions ku ci mel ni wali Wally Ballago Seck Ngaaka Blindé Diamane ba ci Pape juuf ñoom ñooñee nag li waral ñu fomm seeni concert mooy flambée de cas de Covid-19 yi ñu nemmeeku ci Sénégal ba tax na autorité administrative yi fare ci yooyu la gox ñu waroon a dem daal di gàntal seen ndaje yooyule artiste bii di Ngaaka Blindé moom ñàkk na lu ëpp lu toll ci fukki million ci sunuy koppar bu ñu sukkandikoo ci l'observateur moom Ngaaka Blindé dafa waroon a dem foofee ca Kaolack bu ñu tabaskee ba ci ëllëg sa ngir waroon fa jouer moom nag bu ñu sukkandikoo ci ay jege ñaaleem jotoon naa jot avance lu toll ci ñeenti million te ñeenti million yooyu lee la desoon ci relikaawam daanaka ëppoon na ko loolu ngir bu ko tëggoon ba noppi ci concert bi lañu koy li ci des syndicat te ñeenti millions yooyu mu jotoon a jot jotoon na ci def ay dépenses yoo xam ne daanaka dépenses yu takku la décision le mu ngi jóge ci ñi nga xam ne ñoo di autorité administrative yi le ngir adopté li nga xam ne mooy situation réew mi 6 août prochain bi ñu jëm artiste bii di Ngaaka Blindé waroon naa dem itam foofee ca Louga ngir fas yéene fa amal ab concert foofee itam jot nañu dépensé daanaka lu toll ci juróomi millions ba léegi France daal di xëddeen noonee la ñuy wéyee jawal ci jaman bu express moom itam foofee ca Jurbel la waroon a maye ab concert gratuite ngir mën a bégal ay fansam foo nga xam ne foofee mooy fiefam ci gàttal foofee mooy cosaanam di Jurbel ga mu cosaanoo foofee la bëggoon jox leen ab mbir moo xam ne concert gratuite lay doon te lépp nag mu def ko ci alalam ba tax na lu toll ci ñaari million la daal di yëkkati def ko ci mbir moomulee lu jëm ci sonorisation location bile ak ñi nga xam ne ñooy DJ yi ko doon animé ba ci courant bi ak lépp loo xam ne waajtaay la ci bis boobule moom jaaman jotoon na ci def deux millions yoo xam ne lépp ci poche boppam la jóge moom nag jubluwu ci woon lenn lu dul bégal ay fansam ci dëkk bi mu bàyyeekoo Wally Ballago Seck di Faramareen bile moom ci alxamis ji ñu génn la waroon a tëgg foofee ca Kaolack waaye ñu daal di koy annulé bu ñu sukkandikoo ci Mamadou Koné manager bi nga xam ne moo jiite orchestre bi moom Wally Ballago Seck daal dinay expliqué ne promotrice bi nga xam ne moo waroon a amal bileb jotaay moom nag daal dinay perte daanaka lu baree bari ci ay koppar ndax lu toll ci fukki fan ak juróom la daal di loué matériel logistique bi nga xam ne mu ngi bàyyee woon ci waa Xelcom base noonu itam la daal di loué stade bi uniquement ngir fas yéene fa amal bis bi te stade bi mu ngi fa doon fay journée bu ci jot quarante cinq mille francs loolu tax na ba mbir mi daal di leen naqadi loolu lu jëm ci transport mbirum lekk ak naan prise en charge bi nga xam ne defal na ko ñi nga xam ne ñooy équipe bu. xel Xelkom Bas bile seen hébergement ak yeneen ak yeneen ak ñi nga xam ne ñoo di waa Ramdan yi nga xam ne ñoo waroon tëggal Wally Ballago Seck mile ngir mu mën a woy ci boobu lépp concert moom promotrice bile di mettitlu ndogal gi nga xam ne ñu ngi ko jël ginnaaw bi mu defee dépense yu métti yi nee na nag moom ci gis-gisam daanaka autorité administrative yile dañoo xaar ba ñuy jëfandikoo seen doole ba noppi ñu soog a def ñoom lu leen neex Pape Diouf moom ñàkk na lu toll ci fukki million ak juróom-ñaar eh, ci ñeenti concert yoo xam ne waroon na ko amal moom leader génération consciente bi xam am na ay risques yu gaa yoo xam ne fekk na ko ci mbir mi lee moom Pape Diouf mu waroon a am ay spectacle ca Daara Jolof ni ko noonu ay sow yoo xam ne waroon na ko def ci Rufisque Saint-Louis ba ci Louga waaye yooyu yëpp daal di nañ koy ajandi ba jëmmi jamono loolu nag bu ñu ko xaymaa ci koppar yim nar a ñàkk moom artist bile di Pape Diouf boroom génération consciente dina toll ci fukki million ak juróom-ñaar loolee di kàddu yi nga xam ne ñu ngi ko sukkan ñu ngi ko jëlee ci manageram bii nga xam ne bokk na ci labelam di Matar Diop artiste yile Covid 19 bi daal dina leen di galgal. yóbbu leen ardo ba noppi perteloo leen ay millions yu baree bari covid 19 di loo xam ne mboolem kuy doomu Sénégal doo fàtte tooxi doona ak tojange yi mu jot a def gal ko ci ndoddu askan wile waaye artistes yi itam ñoom itam ñu ngi sëngeem di jooy ba ci promoteur yi leen doon tëggal yenn concert yi jamono ji ñépp seeni laaf dafa daal di tooy mbokki internet Feeling Dakar TV jërë ngeen jëf lii mooy li nekkoon liñ leen doon résumé ci li nga xam ne moom mooy xew-xew yile ba beneen yoon fii ci Feeling Dakar TV la première scène people et politique du Sénégal del déglu del xool Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar di am info yu leer ci people et sport